Omar a été un collaborateur loyal. C'est le président de la République qui parle. Omar a été un collaborateur compétent. Omar a été un collaborateur généreux. Compétent, loyal, généreux. Le président wax dañu ko fi yeggal ñu nous avons administration à tous les niveaux Omar est resté invariablement la même personne invariablement la même personne nga nek patron nga nek simplement natangouam, nga nek kenn ki nga xam de da nga ak bok ak mom service Omar musul changé si yow mun naa ko seede itam ginnaaw bi ministre du budget ñu liggéey si lu bëri si wàllum souf, bu ma fa jógee dem intérieur il a continué à avoir le même comportement avec moi Je jóge fa infrastructure même chose ba je ñëwaat finance mel na musuñu pas ko il a eu un comportement d'un haut fonctionnaire Je bu fi nekk tey ñi fi teew sedd nañu effectivement Oumar nous mu donné liggéey ak parce que nous avons vu, mun wax délégation donc c'est tout le président de la république le ministre Abdoulaye Sow a le ministre Omar Sambaba, secrétaire général la waroon avec sur mon collègue aussi le ministre Cheikh Omar Anne le ministre Doudouka, le ministre Djen Farba le ministre Victorine Dey, le ministre donc Papa Amadou Ndiaye nos collègues, effectivement, donc euh, Dame Diop, et nous savons que nous avons fait le coup d'œil politique, surtout sur l'opposition. Nous avons dit aussi un témoignage au Marceau, mon ministre Bopam Dourou-Mahne, et nous avons fait le rafetard. Parce que tout ce qui est Nathalie, c'est Jeff Yubahi. Vous voyez une vidéo, il faut que nous avons fait le film président je suis musul takul ak mom surtout que Dembou, et c'est quand même une curiosité de l'histoire le ministre Ablaye Sow manque rappeler rappelé demb 14 h 10 le président de la république a Omar son message mu donné 11 h ici xamul ne Omar wuy seen Dembou, 14 h 10 à la Mecque mu yondi Omar son message xamul ne heure bobu Omar nekkatul ak bu mu ko yégee première décision bu mu jël mooy nañu ko defal ay dog si Makka defal nañu ko ñaan boobu foofu président mu ne nañu ko yëgali fii ñu yëgali ko njaboot bi Omar nag ñu santal ko yàlla bu baax a baax parce que jëfalin bi ak jaarin mi si wàllum acteurs sociaux yi wax ngeen ko léegi si wàllum acteurs économiques yi wax ngeen ko léegi si walum politique bi wax ngeen ko léegi léegi maa ko don day Ablaye musu ñu xamni sax LD la tellement que Omar était partout et avec tout le monde ñong koy jàllee kon mbokk yi ñu ñaan yalla yàlla nako yalla yàlla xaare ajana eh, mën nañu nak nu mu demee ni xel yi mën nañu dal wax deug yalla ak sëriñ yi comme que yalla demal nañu sëriñ so ñëw na xamna né waxtu bu mu demee. ak jamono bu mu demee muy si weeru koor si fukki fan yu mujjee si weeru koor mu dem si ñuy laam-laame sax maanaam démb en tout cas si wàllum tijaan yi maanaam leylatul xadr la woon ah loolu yëpp foog naa ne mandargal yu baax la mandargal yu dali xel la ñoo ngi koy ñaanal yàlla yal na ko yàlla yërëm yal na ko yàlla xaare ajanna